dal leen ak jàmm ñaari fan yi Sénégal tàng na loolu la ko waral nag moo di ay jeunes yuy wàcc ci mbedd mi di taal ay pono ak euh, saccagé ay ambulance wala sax ay këri jàmbur ngir bëgg état du Sénégal daal di dindi li nga xamante ni moo di couvre-feu bi ak euh, état d'urgence bi ñu tëraloon ngir xeex jàngoro coronavirus gi fii ci réew mi fan yi nag daanaka fépp ci Sénégal moom fu nekk ndaw ñi wàcc nañ ci mbedd mi moo xam ca Touba ca Tamba ca Kaolack ca Tivaouane wala si ndakaaru njaay fépp jeunes yi ñu ngay taal pono ak dàkkante ak ay policier waaye nag ni ki démb ci guddi gi mu mel ni moom jeunes yi seen yaram dafa tàng ba tax ñu daal di accélérer la cadence loolee waral ba way takk der yi mer loolu taal ay lacrymogène ñenn ci force de l'ordre yi sax dem bay foncé ci kaw manifestation yee loolee nag li koy firndeel mu di ab vidéo bi nga xamante ni mu ngi circuler depuis demb ba léegi ci internet bi di ab xale bu góor boo xamante ni ay moom la benn auto police dal di mbëkk ba mu nekk ci diggante dund ak dee naam sax démb ci guddi gi ñu bari doon nañu wax ni jotoon na ñàkk bakkanam waaye nag xibaar boobee wérul ndax kat bu ñu sukkandikoo ci information yi ñu mujjee jot moom xale bi jamono ji mu ngi admis au service d'urgence ca hôpital régional bu Kaolack leen di bàyyi rek ngeen disal seen bopp image u manifestation yi nga xamante ni amoon na démb ci guddi gi feppu daanaka ci Sénégal. <coughs> ne ko gars yi def nañ xay de